Sonko demul bu boobaa ñoom dañuy ñoom dañoo calculer maanaam l'équation ki nga xam ne mooy Guy Marius ci seen plan Guy Marius Sagna Ousmane Sonko ñëwoon ne dem leen ànd ak Guy Marius Sagna bu boobaa Guy Marius donc ñoom si seen i pexe génne nañ équation yëpp di ko jéem a bu ñu téye Ousmane Sonko biir këram ba ba élection yi am nan lay mel bu ñu jëlee Ousmane Sonko dugal ci kaso bi élection yi nan lay mel bu ñu nangam ak nangam ak nangam mais lépp ñoom ay pexe moom mooy pour xool ba Ousmane Sonko du am benn maanaam euh, du am benn effet ay waxam du am benn effet wala kàddoom wala jëfam du am benn effet ci ci kii nga maanaam plan B bi voilà voilà maanaam ñoom équation plan A plan B ñaar yooyu yëpp waaw bu samay wax de day leen may déglu nag man waxuma samay wax nekkuma fi di def ay ay analyse politique déedéet man dafa leen di wax la ñëw pexe ñoom ñoom tooguñu noonu dañoo def ay plan dañoo l' plan A Ousmane Sonko bu waree dem ñoom lan lañ def ba du dem l' équation plan B bu fekkee Ousmane ko demul ñoom jël Ousmane Sonko dugal ko ci kaso tëj ko fa nga xam ne moom du am benn effet ci population bi du ànd ak nit jiital la pour nga dem donc donc man dama lay wax ñoom man waxuma la sama bopp ba léegi génnewu ma dara ci sama xel wax la pour muy claire seeni pexe ak li ñuy waxtaanee ak li ñuy calculer ak ca la ñuy nekk di ko dox ci mbirum saay-saay ak la jëm ci mbirum jéem a éliminer Ousmane Sonko ci la ñu ne bu ma waxee nag loolu ngay jàpp mais bul jàpp ni man may expliquer damay expliquer ay information yuñ may jox pour ñun ñu pare à toute éventualité ñu préparé wu ba ñu bañ ñoo bettee foofu loolu kese la nit bu la nee sangul sa taar la la bëggal waxu la sangul pour nga tilim wala pour nga xeeñ donc nit bu la fëggee dafa bugg nga yeewu fëggu la pour déranger la dafa buggu nga yeewu donc man dama lay wax ni ñoom dañoo jël Ousmane ko teg di calculer plan A bu dee nii la ñëwee nan la ñuy ñëwee ñoom bu dee nii la génnee nan la ñuy génnee soit buñ ko bàyyee foofu ba élection yi bu ko jot dañ koy jàpp tëj soit buñ ko bàyyee foofu ku mu àndal day gagné wala buñ ko bàyyee foofu muy wax di def live ba léegi bu boobaa mun na wax keneen te bu désigner un candidat man maa leen jox l' exemple nag Euh, Guy Marius Sagna loolu moom sa man la man mais bu fekkee ni Ousmane Sonko dañ ko bàyyi fa muy live ba léegi parce que bu duggee ci kaso bi dootul live buy live ba léegi mun naa wax gaa yi dem leen képp ku gis sama bopp ci euh, Guy Marius maa joxee la exemple demal nga jàppale Guy Marius bu boobaa Guy Marius Sagna aussi day gagné donc ñoom ñi ngi toog di def seen i analyse mais pas samay analyse ñoom seen i analyse teg plan A nan lañ koy résoudre équation plan B Ousmane nan lañ koy résoudre et cetera et cetera bu ma la waxee dara nag pour nga bàyyi xel la pour nga jóg pour bu ñu la bettee ci benn côté parce que espèce nord sud mu am mun na jaaree fu ne donc nuñ nañu présent nañ déterminé wu. bu ma waxee dara nag dañ ci ba bàyyi xel parce que bu ma leen waxee Ousmane Sonko fa mu nekk noonu kaso la dañ koo tëj te ñoom ci seen biir bopp dañoo jàpp ne dañ koo tëj. te Ousmane Sonko dem na ba xam ne dañ koo tëj ba mu génnee it daf leen wax ne ah mais man fi ma nee nii kaso la de de dañ ma tëj malgré tout mais dañ ma te ñuy préparé ay yeneen plan léegi yeneen plan yooyu Ousmane Sonko du leen ko wax man maa leen di njëkk ñëw wax plan yi ginnaawaat suba Ousmane Sonko laaj wala ginnaawaat waat suba ñëw wax leen affaire ngeen tourné waat oh moom moo laa waxoon na lii moom moo laa kon no gars yi dañoo bëgg jël Ousmane Sonko tëj ko wala dañ ko bëgg a dugal fii loolu lépp mooy dama leen di préparé wu ngeen préparé Ousmane Sonko mënu génn saa su ne di wax mais ñoom bu ñu tegee seeni plan ni ko Ousmane Sonko di yëgee ñu koy wax ne ko gars yaa ngi préparé ba mu ne leen gaam na lu gars yi di waajal man it noonu laa amee ay renseignement ñu ñëw tamit na ma eh gars yi ñu ngi def nii nii ni man la waa mais Ousmane Sonko nee na am na ay plan yu ñuy waaye mais yan xeetu plan la ñu ne gars yi dañoo nekk di calculer bu fekkee nañ ba nga xam ne bàyyi nañ Ousmane Sonko këram muy def ay live am boobu ba léegi mun a réussir ba effet boobu noonu muy def ci jeunes yi il préfère un moment donné buñ demee ba sës dugal ko donc ñuy wax ma seeni i plan ma ñëw wax leen plan yi te boo leen dégloo bu baax bu Ousmane Sonko génnaatee wala bés buy waxaat dina wax li may wax nii même chose dina wax même chose donc pexe bi mooy loolu bañ a am ñu fexe ba loolu bañ a am ñun benn candidat lañ am muy Ousmane Sonko ñu teg ko fi ne benn plan la muy plan A wax nag day ànd ak jëf wane luy wane ni ñun kii rek lañ am mu bañ yem ci réseau yi de réseau yi moom taxar naa sa na mu bañ a yem ci réseau yi mu bañ a yem ci réseau yi ñu koy maanaam di ko di ko di ko jëfal parce que action speak louder than words action speak louder daan words action mooy moo ëpp lu wax que ay wax kàddu action moo gën a mën a wax kàddu ñun ñëpp dañuy wax loolu waaw benn plan lañ am Ousmane Sonko ku ko laal dee ku ko kii dee ku ko nangam nag Ousmane Sonko Ousmane c'est vrai dañ koo gëm nag conviction la mais il faut ñu appliquer wane ni c'est vrai que kii laal dee la jege dee naan da koy jéem a yóbbu kaso dee di ko xañ dee lool ñu leeralal ko léegi nag équation bu ma amoon bu ma leen posé avant ma finir mooy moom laa leen fi bàyyil équation la question la mooy ñun sénégalais kañ lañ décidé reclamé justice ci ñi nga xam ne dañ leen a faat te amul benn enquête bu ko élucider ñun Sénégal yiy dund ba léegi kañ la ñuy réclamer justice pour ñii ñi nga xam ne dañ leen tooñ tuumaal leen taqal leen tëj leen ci kaso yi waaye ñun sénégalais yi épris de justice kañ la ñuy réclamer justice pour Ousmane Sonko ñu dindi barricade yi ci këram may ko jàmm pour mu dox ay soxlaam ñetti question yi laa leen posé du ma sori ba leen di wax ay ba dañuy xaar wala dañuy xaar Badio Camara wax wala dañuy xaar dér ñett yi laa leen laaj ñun sénégalais yi ñun les épris de justice je par même pas de passif ñun les épris de justice mooy ñi ngi xam ne dañuy bañ nooteel ñi nga xam ne dañuy bañ ku salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama ñi ngi xam ne dañuy bañ ku teg ay nattu wala ay tuuma doomu aadama ñi nga xam ni dañuy bañ ñu ñu rey te du ñuy jàpp ñi leen rey maanaam ñun les épris de justice ñun sénégalais yi ñu ngi laaj suñu moroomu sénégalais yi kañ ngeen décider wala la ñu décider pour réclamer justice à nos morts pour réclamer justice à nos morts dafa yaatu mooy ñi leen rey bu ñu réclamer justice en un rek mooy enquête yi génn pour ñu jàpp ñi leen rey criminels yi assassins yi di dox ñu rek kañ la ñuy décider réclamer justice en un mot en un martyrs kañ lañ décider ñun sénégalais yi réclamer justice à nos frères emprisonnés arbitrairement maanaam sénégalais yi ñu jàpp tuumaal leen taqal leen tëj leen ci kaso yi waaye ñun sénégalais yi kañ lañ décider. réellement dans la spontanéité et dans l'instantanéité de réclamer justice pour Ousmane Sonko pour ñu dindi barrières yi pour mu mun a dox soxlaam en tant que sénégalais récupérer ay këyitam yi nga xam ni ñoom jël nañ dañ koy photo jël ko jox ko Anita muy ay données personnel am kañ la ñuy réclamer kañ lañ décider nii réclamer justice kañ gis naa Euh, waa F24 dugalati demande ne ñoom vendredi dañuy bëgg a marche man xaw ma lan la ñuy defee gars yi bëgg a voté ay projet de loi de liquidation le jeudi yow ngay marche le vendredi te boo defoon naa quatre-vingt-dix pour cent amuñu chance marche dañ liñ koy rejeté F24. man ñoom la ñooñu nag moom ñooñu laa comprendre nu man seen xeex lan la exactement comprendre nu ma waa F24 lan mooy combat bi ku ci xam na ma wax man damay dem ba réer ci ñooñu.